taxawal mel ne stati boobu fii doo fi jaar te joxoo a laa wax dépense bi laa wax waaw yow man xam nga lan laa bëgg nga may ma sama jàmm munumaa dëkk ci aw ma aw ma xam nga lan laa bëgg nga jox ma dépense bi damay toggi ndogu balaa ndogoo jox loolu laa wax yow néew ma la ba taay dépense dama ko laaj gis nga ba addunay baax jaara déglu ma fii dégloo ma ak xel xaw ma dégloo ma ak nopp ba addunay baax borom kër soxna danaan toog ci wetu borom këram wokk ko wokk danga may lu rek wokk ni jaay suuf su sedd nag laay waxee ak yow mu la nam nga ne ko dépense bi yeen bo la ngeen mën am lu neex seen dijay da genn ngeen karal ko ci mbedd man nga dimbali ma may ma sama jamm gis nga sutura da koy bëgg ma defal la ko laaj naa la ko guddi lañ na la ko beccëk amo jom amo ful la jox ma dépense bi la bala ngaa demal nga xaar ma man eh xaaruma la nga ne aw ni awal la wax dégg ah dama dépense nga teg ko sama loxo la wax bu lu kenn dégg dégg yar da nga maa kar man nga jox ma dépense xaaruma kër ga xaaruma la kër ga yar na dem ba nga teel ba taxaw fi la wax jox ma dépense bi damay dukki yow jaar da dox mënon dégg li ma lay wax dégguma usine les mains en l'air. xoolal maa la visité. xoolal les mains ma dépense bi xaalis bi wax visité wu ma la. xanaa man ma visité yow dof nga ma jàpp. léegi man yoruma lu may dof. man la force bi ma jox. aywa aywa ay téema ay téema ñëw. wool ku la neex téema la neex. may dafa yomb. ah wool ku la neex. yow doo ma doo ma may doo ma ma dëpp. man la ba nga dëpp na jox ma damay nduggi damay togg. Hmm. balaa ndogoo jot. léegi maa man maa la mayu man sama bopp maa la mayu boo bëggee dégg-dëgg mayu ma la. non la fa demé yoni ñaar la ding ma def. yow amo yow ci borom keur bu ni tax di ñaan bu la laajee def am ngay fay ni borom keur bu ni tax di ñaan. ki la jëw rek la. yow yow dama dama la sax def mu fekk rek muy xool. dama man daal man daal waaru naa rek. suba ba ngi lay xaar. ci lay di jigéen kan ya, ya wah ya tamit nag ya tamit Baye Moussa wax naa la ba tay war na ma ni la jigéen ñëpp a war na ma dogaale ci ci mbedd di di xaawi sama sutura addunaa demee noonu. yaa xala muñu rek yaa xala muñu rek léegi xam nga lan la coow li jarul guddal di yàggal nañ dem arrêt ba ma la. wuy ma bàyyi kee dem na nañ dem yow tamit jeexal na sama gannaaw yegsi nañu ëlëk du andi reer waaye des koy laal des koy seddu kon ah dégg te réew mi jigéen ñi moom ñëpp yam bañ na ko ba nee nañu maanaam euh, euh, euh, ñoom seen ñaari mbuus lañ yor rek benn wi taat bi baaxul beneen wa taat wa baax daa war a baax nag ah déet taat bi dañ ko war a <laughs> ah, baax ah, waaw waaw ca man waaw mënoo ca dara di bi taat bi baaxul moom loo leen defal ci lu baax ca lañ koy def waaw ah, lu baaxul loo ci defee lu baax ah déet bi taat bi baax nag loo leen def ci lu bon ñu def ko ca léegi nag lenn wax ji lenn dong la track kokkin gii ngay gis muy jakartaa bi maa ko jëndoon booy bi ma ko joxoon muy Babacar lu ma lu ma indil dara mujj gi yàqal ma ko sax la def dégg mm-hmm. léegi nag ma jox la ko yow mii nga yor ko boo ma joxul dara sax moo ma gënal ngir dimbali la jàppale la dégg bi beneen bi ci topp mooy mm-hmm. boo amee ñaar jëlal genn genn wàll indil ma genn wàll mm-hmm. soo amee ñett jëlal ñaar indil ma genn wàll yaa ma ko ji da saawaay yaa yàgg dégg nga waaw mangé mangé amul jafe waaw ndax ku daan dawal bébé waaw ak ak ak ak ak ak dawal cent cinquante eh, eh, eh, Vespa Vespa da ngaa mel ni alarme police yooyu noonu <laughs> inshallah daal jox nga moro ku ko ku ko mën ku ko miin wuy ma déet bàyyi mu ku ko xam ndànk nag kii doole ji daa bari de ndànk ah, rek ndànk rek bébé ko ëpp doole foofu waaw ndànk rek mm-hmm. ndànk dégg baax ndànk rek bu ko defee ah. caabi caabi jaa keleng keleng yi nga ci gis yëpp xam nga gone yi rek moo ko ci def jéena waaw <laughs> moo ci def yi yëpp waaye daal jéena sàllaaw dégg jéena kon ñu doxee ko noonu muy ma góorgóorlu sooba yàlla adduna dara météo wërsëg day baax na yàlla yàlla doole si turam yàlla yàlla defal jàmm yàlla ubbi buntu wërsëg yi xewal yi yëpp baax na jaajëf na kon mën naa ko kii waaw waaw mën ngaa dem ma ne ah. am na am na essence waaw waaw waaw am na essence. am na essence waaw waaw def na def na def nañ si loo xam ne mooy wax dëgg yàlla salaam. lii am na mu xam si. mu xam si waaw ñaata nga ko. Babacar jaar na ko mu xam sa bopp. defal lu gaaw. yow ñàkk nga fay de mënoo ci ne ci bitig bi mënoo yor jakarta man billahi gis nga gone tey yii nii. yaay mu xam sax kii de sawar na ci moom. waaw yooyu war na rek ak doxaan gu métti goo xam. ko gisee si kanam bi nga yaakaar ne wilaay moom ak gone yi. Ah, baax na jërëjëf. jërëjëf ñu eh, eh, ñàkk jur doom eh, taxaw ta yaram. moo ñii. Ah. baax na Baye Moussa kon ñu def noonu. baax na comme comme na ah. baay nag day day tooy raam baax la jox. bii. doxal na Baye Moussa. day

lay saa waay ba ngay demee fi mag. yaa ngi feeñ feeñ ñu toog nga ñuy nga ñuy sax quoi. yow dëgg la bi. waaw waaw waaw waaw